mbokk yi asalaamaaleykum wa wa barakaatu dellusiwaat nañ ci seen jotaayu borattilil quraan tartila jotaay bi ñuy jàngate ak di ko nafare yenn ci téere yooyu boroom xam-xam yi bind nañ ko ci wàllu nan la ñuy jànge alquran ju wér te set te jub di fànnuk te juid ngeen ni ci ànd seen bokk Abu Taha Muhammad Alin Guèye ñu doon nafar تيري بوبي تدو مقدمة الجزرية بإمام محمد بن الجزري رحمه الله با جيخالون جي سنو جوتاي بي موجو باب مخارج الحروف وردل نك جي سنو جوتاي بي باب صفات الحروف دي بنت بي جتوب. الصفات جمع لتي صفة مملا ولف دي وخ ملو melo as kon mooy ay melo xaraf wu nekk ca jamono bañ ko génnee ca maxrajam eh, da yëg ni am na nu mu fay génne noo xam ni da koy wuutaleeg ay moroomam ci xaraf bal da koy wuutaleeg sax xaraf yam fa bokkal dëkk noné mu fay génne melokan la ci mom motax ñuy tuddu sifatu al huruf sifatu al huruf nak buntu sifatu al huruf xam ko amna na njariñ ndax mo lay may nga mëna ragné ràññee xaraf yi nga xamni ni dañoo bokk ay makhraj ci misaal te jigé tamit ci tuddin melokaan yi mooy tax nga mën koo ràññee buñ joxe misaal ci xarfu zaal ak zaa azzaalu ak azzaau ñoom ñaar ñooñi ñoo bokk fenn fu ñuy génne waaye xaw a nuroo sax nuñ leen di tuddee moo tax ci jamono bi alquran di doog a ñëw euh, lango arab wi alquran indaale bees ci ñim fi fekkoon ñoom ñaar ñëpp ci xaraf yi ñaan tudde siin la bokkoon dangay dégg mag ñi daan wax siini juróom ñaar dal eh, ci ñaan jànge siin saalikal kitaabu dha ci ñaan jànge siin la assanina billahi ci misaal ak yi ni deme ñaari xaraf yooyu li ma jubloo wax mooy ñoo bokk génnuwaay te tuddin wi it xaw a jigee tuuti li tax nga man leen ràññee mooy seeni sufaat seeni melokaan nga xam ni allah ci misaal am na sifatul isticla daal contraire bala am al istifal adda am na sifatul itbaq dal contraire bala am al ismaat wa halumma jara kon melokaan yi moo lay may nga ràññee ñaari xaraf yoo xamante ni ñoo bokk génn waay leeg sax ñu xaw a nuroo ciw tuddin kadalik boo demee ba ci biir téere bi ci baabu daat da ngay dégg mu naan waddaadu li maxrajin xawma bistitaalatin wa maxraji waddaadu باستطالة ومخرج ميز من الضائي دلا وخنا لاني خامي حرف الضاء اك حرف الضاد نخ نيوم نيار بو ديمي مخارج الحروف ньо بوك دكندو سي لامن سي مخرج عام بي اندك ني بوكو ني فوني فا دك ووتو نان كون سي مخرج سي بير لسان waaye boo ñëwee ci buntub sifaatul xuruuf it daanaka dañoo bokk yëpp daanaka dañoo bokk yëpp ba mu des benn boo xam ne daad am na ko te daa amu ko ma ngoog mun la nag comme que ñoom ñaar bëgg nga leen a xàmmee bokk na ci yi nga leen a xàmmee daad mii am na sifatul istitaala te daa amu ko li ma jubloo wax foofu rek bu ma ko tënkee mooy njariñ li nekk ci xam sifaatul xuruuf mooy xàmmee xaraf yi rawatina ñi bokk génnuwaay te léeg-léeg sax ñuy bokk nuñ ne ni tudde sifaatul xuruf nag dafa séddalikoo ci ñaari wàll dafa am lu ñuy tudde sifaatun zaatiya ak lu ñuy tudde sifaatun ardiya asifaatu zaatiya mooy melokaani xaraf yi nga xam ni jëmmi xaraf yu lañ topp fu mu mën ne ñu fekk ko fa as-sifaatul ardiya mooy melokaan yi nga xam ne dañuy gaar xaraf yi ci yenn situation moom dañuy dañuy gaar xaraf yi ci yenn situation loolu mooy seen teqale ñoom ñaar as-sifaat ad-daatiya bi ma njëkk a tudd moom daa séddalikoo ci ñaari wàll moom it te ma gën a ma leeralaale ni mooy bi borom téere bi buntal maanaam baabu sifaat alxuruf ci téere almuqaddima fi ma ala qaari alqurani an yaclama alsifat aldatiya la fa jàngale alsifat aldatiya la fa jàngale moom alsifat aldatiya googi ma wax ni dañuy topp xaraf wi fu mu mën a nekk ñu fekk ko fa ndax jëmmi xaraf bi la ñamal affaire moo tax fu ñu ko fuñ fuñ fu mu nekk fu nekk dañ ko fay fekk moo xam daa sukun moo xam daa maas ak nu mën mel dañ ko fay fekk moom moom ci boppam it dafa séddalukaat ci ñaar sifaatun laha didd ak sifaatun laysa laha didd melokaan yoo xam ne dañoo am contraire dañoo am ab safaan yooyu juróom la dina gën a leer eh, buñ dugg see ci sharaab bunt bi waaye mën nañ cee lim eh, juróom yooyu mooy aljahr contraire am mooy arraxaawa ñaareel bi di euh, alhams asafrullah maa ngi jéggalu maanaam euh, bi ci njëkk mooy alhams euh, contraire am mooy aljahru aljahr ak alhams bu ci nekk contraire morom jila benn ñaareel mooy arraxaawa contraire am mooy ashadid ànd ak ni seen diggante am na xaraf yu fa nekk li ñuy tudd al xuruf al bayniya dina leer ñetteel bi mooy al istilaa contraire am mooy al istifaal juróomeel bi mooy al infitaax contraire am mooy al al itbaaq juróomeel bi mooy al usmaat contraire al inzilaq jamil nga gis ni kon juróom yooyu ma lim bu ci nekk am na contraire buñ leen boolee kon muy fukk juróom yooyu dina feeñ ci biir incha allah benn bu ci nekk bu jëlee ay xaraf sa contraire da jëli les sëpp ci alxuruf lhijaiya ñaareelu xaaj bi ci asifaat al ard addaatiya mooy sifaatun laysa laha didd sifa yoo xam ne amuñu safaan ñoom melokaan wu nekk xaraf ya nga concerné ngay ñëw jël la ci des sa yoon nekku ci ñoom juróom-ñaar lañ آه، نم الصفير القلقله منغوك آه، اللين الانحراف التكرير التفشي الاستطال كون الصفات الذاتيه نم نيب فك لن اك جوروم ñaar ñomit yenen benen xaj صفات الحروف moy الصفات العرضيه ملوكان ييغا خامني day faral di yennete xaraf léeg-léeg léeg-léeg tamit mu tàqali koog moom maanaam léeg-léeg nga fekk xaraf wa melo yi ñu wax da koy gaar du ko fa gaar leeg nga fekk ko feneen mu gaar ko fa comme at tafxiimu wa tarqiq at tafxiimu wa tarqiq at tafxiim wa tarqiq sifa lañ ci raa sifa ardiya lañ ci raa ndax léeg-léeg nga fekk raa mu am sifatu at tafxiim nga fekk ko feneen mu am fa sifatu at tarqiq ma ngoog kadalika laam da nga koy fekk ci lafdul jalaal léeg-léeg mu am fa at tafxiim léeg-léeg mu am fa at tarqiq boo demee ci raatu war sax lay gën a leer jëmmi laam ci boppam da nga koy fekk ci barab ci ay baat ci barab yoo xam ne dañ ko fay taxliid nga fekk ko ci yeneen barab yoo xamante ne dañ ko fay tarqiq kon da nga yëg kon melokaan woowu day gaar xaraf wi léeg-léeg léeg euh, du ko gaar day euh, bàyyi noonu ma kon ñaari wàll yooyu la sifaatul xuruf séddali ko sifaatun dhatiya ak sifaatun ardiya dhatiya mooy yi taqoog xaraf yi ardiya mooy yi gaar xaraf yi léeg moom sifaat zaatiya yi dafa séddale ko waat ci ñaar sifaatun laha didd mooy yi nga xamante ne dañoo am contraire ak sifaatun laysa laha didd mooy yi nga xamante ni amuñu contraire loolu ak lay taale woon ci bunt bi borom téere bi nag tàmbalee bunt bi kon di baytub ñaar fukkeel ci téere bi sifaatuha جهر ورخو مستفل منفتح مصمدة مصمتة والضد قل جاكس نكون بيت بوبي تي نجال بينو بنت بي لمنا تي جرومي صفة ينغا خمني موي أم كونترير جهر الجهر ورخو أك الرخاوة مستفل الاستفال munfatix al infitaax musmata al ismaat juróom benn sufe yi mooy yi nga xamante ni ci sifaat zaatiya yi dañoo am contraire léegi nag ni borom téere bi jàngalee mooy buy lim contraire yi contraire bu nekk day waxaale ay xarafam bu defee nga dégg ci ni kon ba mu limoon ca baytu bu njëkk ba ni mooy contraire sifa sàngam xaraf yam joxul sifa boobi mooy nekk xaraf yi contraire am ci misaal jahrun la sifaatu jahr la njëkkalim buy lim contraire yi dëdd yi mahmuus lay njëkkalim indi xarafi mahmuus xaraf yam limul ba muy lim xarafi mahmuus mooy nekk xarafi aljahr pour nag euh, mu gën yaatu ñu dugg ci dëdd yi wax seeni xaraf waxaale kon xaraf yeey des ni mooy xaraf yi contraire bañ limoon sunu waxtu moo jeex dañ koy jàppal idda ci jotaay bii di ñëw di seen jotaay boratil qur'aan tartila ngeen àndoon ci ak seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye رتل القرآن ترتيلا